maa wasalaamu ala nabil karim saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam allahuma inna najaluka fi nuhurihim wa naudu bika min sururihim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci gën kàtte du koy nuyoo mu baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk xam naa bu ñu jëlee micro yi toog fii jàkkaarloog yéen nag bëgg leen dugal ci mbégte mi la waaye lii day bu ci suñu xol seddee gëm na nañu seen yoso ko raw ñu jukki ci rek sëñ Muntaxa moom sëñ Basiiru yàlla na yàlla guddal aw fanam ci ndigalam sëñ Moodu Maam Mbenda Fall xalifa général kullu Baay Fall ci ndigalam mbokk yi bis bi nga xam dangeen ngeen koo baaxoo woon yéen waa Ceeskaay à la le monde ci at mu jot ngeen koy ànd ak seen soppe seen xarit seen wëlëre seen sëriñ seen doom seen rak seen dëkkandoo muy kan sëñ maam Cheikh Fall moom sëñ Modou Ablaye Fall Ndar bis boobu nag moo dellu si muy gudd tam xarit gi nga xam ne danañ ànd ak sëñ Fallou Fall mu sëñ Cheikhouna di magam di xaritam ñu koy taxaw at mu jot fii ci diggu cees ci promenade des Thiès waa mbokk yi bis boobu nag lañ ñëw tey di fàddali di leen yëgal ni ñëwaat na guddi tam xarit mbokk yi bis boobu nag murid rek moomatun ko Baay Faal rek moomatun ko képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan mbokk yi ci jàngu bi digganteem ak sëñ maam Cheikh Fall ñëpp xam nañ lu rafet la ñu ngi leen di woo ci bis bi. mbokk yi du ñu guddal ndax ñi war a jël kàddu tey bari na ci mbooreem fu kuréel nekk am diggalanteeg sëñ bi ci demante lu baax ci diggante wëllëre ak kóllëre xamal ni tey dinañ la woo ci bis bi di la wax ne képp ku déggul turam nag na nga xam ne suñu kàddu gi mooy sa lettre invitation damay yem fii rek ni sëñ sëñ Saliou Ndiaye mu ñëwal ma ci turu kilifa yi yi nga xam ñoo ngànk bis bi ci seen i ndigal mu woote ci turu sang si bu noppee ñu wéyale salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi samiil alim min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah alhamdulillahi alqaa'il fi muhkami tanzilihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi ورضي الله عن محمد ابن محمد ابن حبيب الله المكي وعلى استراج المريدين wa baabihim qaaid alfaaliya mawlaana sow maam Seynabou Ndiaye wa radiyallahu an jibil xalifati maam Cheikh Ibrahima Fall battalul islami baabil muridina aami Cheikh Abdoulaye Fall Ndar saalisu xalifati Cheikh Ibrahima Fall rahimahullah wa amatu usratu Mouhamadou Moustapha Fall aami Modou Baye Djibi Fall radiyallahu anhu wa nafaana bi barakatihi allahuma amin kon mbokki jullit yi ñuy déglu te di ñu teewlu àdduna wërngal këpp ñoo ngi sant yàlla di julli julli bi alayhi salaatu wasalaam di leen wax ne su ngeen gisee jotaay bi xam ne la daan xew xewati na te mooy bésub bi nga xamante ne maam Cheikh Ibrahima Fall moom Cheikh Mour Abdoulaye Fall Ndar moom Cheikh Abdoulaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin mu ngi koy amal ak mu nekk fii ci Thiès ci Tamxarit nuy tàmbali nag di nuyu tey ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci li ñuy tàmbali suñuy wax ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp di ñaan suñu borom yàggal ko fi ci wéral ko ak ci ndigalal Cheikh Amdi Fall Mouhamadou Moustapha Fall Mbenn di xalif général des Baye Fall ak njaboot mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi yëpp waaye ci ndigalal Serigne Mortala Fall xalifatu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar ak mbooleem njabootu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar bi yépp ak ci ndigalal Serigne Cheikh Bintu Fall xalifa Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar ak mbooleem njabootu Cheikh Moudou Abdoulaye Fall Ndar bi yépp ak ci ndigalal Serigne Jiili Kinne Fall moom Cheikh Moudou Abdoulaye Fall Ndar ak njabootu maam Moudou Abdoulaye Fall Ndar bi yépp Serigne baa ngi woote nag di woo mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ba ci kër Sërif Abdou Sakour Fall kon suñ tuddee njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall Serigne baa ngi koy wax Serigne Cheikh Ndiaye Meng mi buntu ba tey mu ngi ko ciy woo ak di woo njabootu Serigne moo taala Fall gi yëpp ci njiital Cheikh Abdou Roqe Fall mi xalifa Cheikh moo taala Fall ak njabootu sëriñ Assane Fall te xalifaam di sëriñ Amdi Assane Fall ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Sakkour Fall te xalifaam di sëriñ Falilou Fall Abdou di woote nag fii di Thiès sëriñ Moussa Fall moom sëriñ Mbacke Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak it tamit sëriñ Cheikh Ngunda Fall moom sëriñ Ngunda Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall. ak Serigne Mbacke Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall di ci wooy tamit Serigne Khadim Lo Gaydel ak mboolem njabootam di woo ci tamit Serigne Cheikh Sidi Diop ci Njaaréem moom Baye Cheikh Diop moom Baye di wooy tamit mboolem njabootu Serigne Babacar Lo ak waa Looyeen yëpp di wooy tamit njabootu. sëriñ maam ma Talla Mbaye ak mboolem njabootu maam ma Talla Mbaye dañu bokkoon ci mag ñi nga xam ne àndoon na Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu tamit sëriñ Abdoulahi Yacine Diop sëriñ baa ngi leen koy yëgal te di ci woo di sëriñ bi nag baaxoo ak mu ne mu jël guddi gi dara jaale ko waaye ren nag dafa tànn kuréelu Zikrullahi dara jaale ko bés bi kon édition bii ren 2022 sëriñ bi nee na darajaale na ko waa daairatu zikrullahi ci njiital sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall moom sëriñ Assane Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall di woo yi tamit ki nga xam ne nag moom lañ parrainé bés bi muy sëriñ Ibra Thioune Sambanaar ak mboolem njabootu sëriñ Ibra Thioune Sambanaar kon ba tey sëriñ baa ngi ciy woo njabootu sëriñ Abdoulahi Yaqin Aydara ak mboolem njabootam fi ci Thiès sëriñ maa ngi leen ci woo di leen woo ci màggal jii muy màggalal maam Cheikh Ibrahima Fall fi ci Thiès kon ñoo ngi jaaree kaddu di jébbal nag kaddu bi sëriñ Assane Thiam ñaaral maam Cheikh Ibrahima Fall mii moom Cheikh Moudou Abdoulaye Fall moom Cheikh Abdoulaye Fall la moom maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu Cheikh Moudou Abdoulaye Fall la bi yëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu alaykum lil alamin jërëjëfati borom Touba jërëjëfati borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ñu ngi siyaar mbokk taalibe yi fi teew ñëpp di ñaanal mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak di ko ñaanal Serigne Amdi Moustapha moom Serigne Modou Menda sunu borom yàggal ko fi di ñaanal sunu Serigne sunu jëwriñ sëñ maam Cheikh Fall moom sëñ Modou Ablaye yàlla na ko fi yàlla yàggal ba liggéey bi nga xamante ne taxawu na ko ngir bëgg cee liggéeyal maamam ja maam na ko sunu borom kattanal te jox ko xéewal yi mu ko defee te ñu ànd ceeg moom barki maam Serafal woote bi nag woote waa ëxlu sikrullah daayira fédération bi nga xamante que ne Serigne Cheikh Jëmb Fall moo ko tuddee woon waa daayira xitmatul xadim sëñ maam Cheikh Fall daan bis bi de dara jaru ko lenn loolu ëxlu sikrullah ñëpp ñoo xamante que ne kuréel la guy tudd yàlla ne fii ci senegal mu ngi lay woo ci bis bi rawatina nag mooy daayira xidmatul xadim bi nga xamee moo féete fii ci Thiès. njiit li di Serigne Cheikhouna Wade ñu ngi ko ciy woo di ci ñaanal ñi nga xamante ki ni ñoo bokk ci bis bi daan ko taxaw muy guddug tamxarit gi nga xamante ki ni sëñ bi daan na ko woote fii ci place de France ñu ko fi daan def at mu ne ren di neuvième édition bi sëñ bi nee na mu ngi ci woo mbokk taalibe yëpp di ci soññ nag sama mbokk ñi nga xam mooy mbokki Baay Faal yi ne leen bis bi nan ko taxaw ni nga xamante ni mooy ndigalu sëriñ bi ndigalu sëriñ bi mooy la nga xamante ni moom lay digalee ca Touba moom la sëriñ bi dem digalaat fii ci guddi gii ndax képp koo xamante ni xam nga ni guddi tamxarit guddik jàmm sunu borom la am na nu ñu ko daan doxee waaye ci ndimbalug sëriñ maam Cheikh Fall wan nañu yoon wi nga xamante ni moom la ñu war a mën a taxawee guddik tamxarit bi muy guddik jaamuk yàlla guddi jàng alxuraan guddi jàng xasida ak tudd ba tax na ñu ngi woo soxna yi nga xamante ni ñoo ñëw ci bis bi ñu ngi leen di ñaan rek nañ col col goo xamante ne col gu bis bi laaj la góor yàlla yi ñoom it sëñ bi nee na mi ngi leen di woo ci bis bi ba ñu col col goo xamante ne bis bi moom la yellu ndax kat kuy jaamu sunu borom rawatina ci guddi tamxarit ñu jagleele ko kenn ku dul mam si rafal kon war na noo mën a mel melokaan goo xamante ne bu nu ñëwee ku nu ñëw fekk nañu kat bu ñu xamee ne que ñii kat jàmm yàlla képp leen tax ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp te ñaan ñëpp jàmm barki mam si rafal waa kuréelu xasida yi kon sëriñ Abdoulaat ñu jox ko moom it mu woote ci bis bi salaamaaleykum wa rahmatullah bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi sëriñ Fallou Fall mu sëriñ Cheikh Naar ak rakkam ju baax ji sëriñ Maam Cheikh Fall mi nga xamante ni ni ko jëwriñ ji waxe léegi jotaay bi ci sababam lañ koy defee di ñaan suñu borom defal ñu fekke ak tal ci bis bi nga xamante ni moo waral ñëpp daja fi muy bisub tamxarit di bis boo xamante ni yàgg nañ koo taxawal fii ci cees wooteel ko sunu maam maam Cheikh Ibrahima Fall di bis boo xamante ni nag wolof day wax ni ku yokkul yaa wàññi dafa yaatu ba mbooleem tarixa yi ñu ngi leen ci woo ñun nag dañuy woo ñi nga xamante ni ñooy tudd yàlla sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo yor kàddu gii di tudd yàlla ku ci mel ni Pape Faye di sunu mag nekk ba ndakaaru sëriñ bi nee na mu ngi koy woo ci bis bi moom mboole njaboot gi nga xamante ne ñoom lay àndal ak ay soppeem ah, di ci woo bu baaxee Moussa Kalaamullahi mi nga xamante sunu mag la nekk ba ndakaaru di ci woo ñi muy àndal ñëpp di ci woo bu baax it Baye kenn di ci woo Serigne di njaay ca Noto sëriñ bi nee na mbooleem ñi nga xamante ni daal dañuy tudd yàlla mu ngi leen di woo ci bisub tamxarit gii ngir ñëw ànd ko moom béggalante ci Serigne Touba ak Cheikh ci biir loolu nag ñu ngi ciy woo bu baax it imaam Fallou Lo mi nga xamante ni mooy imaamu raatu bu Thiès di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral cërëm di ci woo tamit ñi nga xamante ni ay mbootaay lañu te di ñu safoo suñu jëmm ji euh, ku ci mel ni groupe soppee na bi bi nga xamante ni ah, soxna kànk moo ko jiite ci ndigalu alxaaji Mor Gueye soppee na bi ñu ngi ko ci woo di ci woo mbooleem ku bokk ci fondation bi di ci woo tamit groupe sopp nabi bi nga xamante ni madame Diallo moo ko jiite te nekk fii ci fayu di ci woo tamit groupe soppe nabi bi nga xamante ni euh, soxna madame Diallo moom it moo ko moo ko jiite tur yi dañoo ndroo moom it nekk fii ci kër Sayib euh, kër Issa di leen ci woo di ci woo bu baax it soxna su kase mi nga xamante ni kenn la ci ñun ak mbooleem Eh, jigéen ñi muy àndal ci bis bi nga xamante ni bisu tamxarit la eh, di ci woo mbooleem soppe yi nga xamante ni dañuy bége ndax bis ba incha allahu rabbi danañ fa taxaw béggalante ak soppe yi ci tur yàlla yu tàgg fa yeneen bi alayhi salaatu wasalaam kon mbooleem koo xamante ni yaa ngi ñuy bége man Abdoul Ahad Ndiaye maa ngi lay woo ci bisu tamxarit googu nga xamante ni Serigne Maam Cheikh mu ngi koy amee fii ci France de France incha allahu rabbi barke Borom Touba doole yi Maam Cheikh barke borom Touba dooley maam Cheikh Ibrahima Fall rabbana la ilaha illa la ilaha illa la Fall Mustafa la ilaha illa la ilaha illa la Fall buri jàmm ñi la ilaha illa la ilaha illa la faalu cheikh Ibra Fall la ilaha illa la ilaha illa la faalu la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la ci barkeb la ilaha illa addi maam cheikh Ibrahima Fall maa ngi jégalu kaddu yi dafa fekk ni kat ki ñu jox micro bi day ko tuddkatut yàlla di Assane Thiam Zikroulah di woo mbokki jàngikatam yépp mbokki sikarkatam yépp di ca jiital sëriñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Sërif Assane Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ni moo ŋànk daayira ku ëhlu Zikroulah gi yépp ñu tudde leen matul maam Cheikh Ibrahima Fall kon moom maa ngi koy jiital ci woote bi di woo mbooleem ku ne ci dëkk bi di tudd kotub yàlla ñu ngi leen di woo ci bis bi di bisub tamxarit fàttewuma tamit waa groupe sopp na bi fàttewumaat waa canaba fàttewumaat mbokki taalibe yépp mbooleem kuy tudd yàlla maa ngi lay woo ci bisub tamxarit bi di ñaan na képp ku ci teew yàlla na say aajo faju ci barkeb laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon maa ngi yemale fii kàddu gi jox sëriñ bàyyi ibra mu àggale yéeneem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يحوذ لي كن فيكون حالي منك بلا حقد ولا تحالي barke borom Tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo bu gën a sell di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Sëñ Fallu Fall mu tegal na ko ci mboolem ku fi toog di jaar baax a baax a baaxaat sëñ maam Cheikh Fall mi nga xam ne moo sabab lii ci ndigalam ak ci làmminam la ñuy waxe ci mboolem daayira yi nga xam ne ñoo dëkk moom fii ci Thiès sëriñ bi nee na mi ngi woo daayira Tasawou Soubane di ci woo tamit daayira Tasawou Soubane bu sëriñ Mamor ak sopp sëriñ Saliou bu mit nafaal ak safinatu amaan bu looyee ak waa kër borom Tuubaa bu mel na faat ak Fatxul Xabaar bu mel na faat ak Majmahun Nooreeni bu mel na faat ak fédération Majmahun Nooreeni mi nga xam ne moo lëkkale élèves yi ak étudiants yi ñu ngi wooyee Fulkul Masoon bu ginnaaw raay ak sopp Serigne Fall bu ginnaaw raay Serigne bi nee na mi ngi woo mboolem daayira yi nga xam ne ñoom la dëkk fii ci Thiès nee na koo daayira boo boo boo xam ne déggul turam. Euh, woote bi moo moo abdullahi bil fuddala innal kawaakiba yufiha sinimaaru fala taqi somna abdullahi bil fuddala الورى ليلى فضل المسرين لا والفضل عند رسول الله قرار asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taaliba yëpp di ziar sëñ daadoom Cheikh Mourtada suñu wasila ci buntu Serigne Touba ak suñu buntu ci Cheikh Ibra Fall Serigne Cheikh Mounda Fall ak njaboot sëñ Touba geeg Cheikh Ibra Fall gépp ñu ngi leen di ziar di woote nag ci bis bi nga xamante ni bisu jullit yàlla yëpp la rawatina ren ji sëriñ bi defal ñu ci ab cër ñun jàngkat yi xaside yi ak tuddkatu yàlla yi wax ma ne daf ñu ko tudde mu rëy ci ñun lool ndax sëñ bi ñun la doon commencé rek waaye fii yëf yi toll war nañoo mën a doxalal suñu bopp kon ñu ngi ci woo jàngkat yëpp di di di ci jiital sëriñ Cheikh Mbay laa xamante ni ku ko am xam ko ak ñun ak waa groupe Lamp Fall bi mu baaxoo àndal yëpp ñu ngi leen di xaar ci bis ba ak mboolem ay soppeem di ci woo Mourtala Kane moom itam zikrullah xam bis bi miin na ko wax dëgg yàlla ak sayer zikrullah ñoo ngi koy woo baax a baax a baax ak Mouhamed Alla Diop di suñu lépp wax dëgg yàlla sëriñ baa ngi koy wax ak ay soppeem yi féete fii yëpp ak fu soppeem mën a ne di suñu yaay suñu mag soxna na koy géy moom itam bis bi miin na euh, kàddoom ci tur yàlla wi ñoo koy woo baax a baax ak waa groupe Lamina bi nga xamante ni moom lañ baaxoo àndal ñoo ngi leen woo ak képp kuy bëggee Ndiassane Ndiaye nag nee rek di woo suñu mag Serigne Modou Aïda Fall zikrullah euh, di ko xam ne Serigne Banko ñu ngi ko daan taxawoo rek incha allahu rabbuna jërë ngeen jëf. aouzu billahi ko yaa xayra waalidin bi xayri baladi bi aalihi wa sahbihi wa alhamadi salaatu zil azim ajim samadi wa radiyallahu an cheikhina muhammad ibnu habibillahi makki wa ila jaddina cheikh Ibrahima Fall wa man ihtada bi hadiyati ila yawmi diin mbokki ñu mbokki jullit mbokki taalibe yi nuyu jiital ci nuyu bi di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa Basiru muy sëñ Tuubaa te ko sëkk yàlla gën ko fee bàyyi noonu lañ koy ñaanalee si ñoom ni muy toogee jotaay bu ko fee ak nuyoo tamit da ci turu sëriñ Motaala Cuun mi nga xamante ni mooy xalifa njabaru Sëriñ Cuun Samba yëpp ak njabaru Sëriñ Cuun Samba Naar yëpp di woo ci bis bi nga xamante ni moom la sëriñ Maam Cheikh Fall di amee ci taxawaay bi di ñaanal baax sëriñ Motaala Cuun suñu borom dolli ko liggéey ba naal yi nga xam te naal na ko yëpp mu àggali ko sagoon di nuyu ci nuyoo boobu njabootu Cheikh Rafal gépp rawatina ñu tere jotaay suñ ci jiitalee sëriñ Fallou Cheikhu Naar ak rakkam ci ñam bi ak sëriñ maam Cheikh day daje ci mbooleem ku sant Fall ku nekk ci gox bi wala ku ne ci jotaay bi di nuyu tamit sëriñ Moussa Mbacke Fall fii ci jotaay bi di Thiès di jotal sëñ Cheikh Ngounda ak mboolem kilifa yëpp. ñu ngi naanal sëñ Amdi Fall Modou Mbenda mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sëñ Cheikh Bintu Fall sama borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér mu ànde ko ak njabootuk sëñ Modou Ablaye Fall ndar gépp di nuyu sëñ Fallou Fall Cheikhou naa ak mboolem rakkam yi mu fi àndal yëpp di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu soxna yi nekk ci Thiès yëpp. di leen yëgal bisub sëñ maam Cheikh Fall bi nga xamante ni bi ni moom lay def bisu tam xarit di ko def ci promenade des Thiessois ca souterrain ba ma di ci woo soxna yëpp di ci woo daayira soxna jaaratulaa yi nekk ci biir Thiès yëpp di ci woo daayira soxna jaaratulaay bi suñuy waajur jiite sa suñu yaay soxna seen jiite ko di ci woo yaay faal yi nekk ci pénc mi yëpp ci njiital soxna maam say faal ibnu Serigne naa Fall di ci woo soxna yi ci Thiès yëpp képp koo xamante ni bi nii dégg nga annonce bi jàppal ni mooy sa invitation maa ngi ci woo soxna yëpp di wax na ko ñëpp waajal bisu tamxarit lay nekk ci guddi ci souterrain fa ko sëñ maam Cheikh Fall daan defe ànd koo njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ci nuyoo di ci ziyaare kull ku nekk ci Thiès te sant Fall di ñaanal taxawaay yi yàgg te mu ànd ak wér ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dooley maam Cheikh Ibrahima Fall di soññ suñu waa kër waa kër Cheikh mataala Mbay di teg soñña bi ci loxol soxna Yaaxam Mbay jëwriñu sën maam Mor Saam ji mu soññ ñëpp ñu ànde ko di ñaan sama borom mayu ñu àgg fa ak jàmm te tel ko te mu ànd ak i ngërëm te làkk ci ngërëmal Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi kon bon mu ngoog mu mel ni rek mbokk taalibe yi matale nanu dëkkandoo yi matale nanu am di jàmm yi matale nanu di ñaan yàlla yóbbuñu ci ci alhamdulilahi rabbil alamin di wax ni mbokk yi bis bi nag ndawalub guddi la rek ku daj yaakaar nga ni yow rek yaa lamb ñu jàppe ko noonu ba tax na képp ku tuddul turam nga xam ne xalangu moo dajul suuf waaye sëñ bi dafa wax ni duñ wax ba àggal nag te du tudd autorités yi nga xam ni ci wàllu administration ndax xam nga ni bis bi ni mu toll la fay tàbbi ci mbooloo sapeur pompier de soxla nañ ko fa soxla fa GMI soxla fa ñoom it waa croix rouge te ñu xam ne seen déplacement daa am ci loxo yi muy war a tàbbi kon monsieur le gouverneur ceew la ñuy tàmbalee seen baang lay woo ci bis bi bu baax a baax di woo monsieur le président Idrissa Seck moom mi nga xam ne promenade des Thiessois ba ñu koy defee lu waay gàtt dégg-dégg gàtt dégg-dégg xam nag ci nguuram lañ ko amee kon président Idrissa Seck sëñ maam Cheikh Fall mi lay woo ci bisam boobu nga xam guddi tam xarit la di ci woo nag monsieur le ministre Yankhoba Diattara monsieur ministre de télécommunications moom mi nga xam ne ndaw la am naag jàmm jeunesse bi waaye am naag jàmm nag kilifa dine kilifa aada yëpp kon Yankhoba sëñ baa ngi lay woo ci bis bi di la wax ne nag ñu ngi lay wax nga tàbbi fa ak sa mbooloo te lépp loo fa sàkku yàlla na maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouride sédd la ci cërëm ba ci woo tamit ki nga xam ni mooy monsieur le maire Babacar Diop Babacar nag nee naa la li li sag pal neex neex neex neex bis bi bu ko rate ndax bis bi bokk na ci bis yi njëkk yi nga xamante si nii man nga faa tàbb am fa sabaarub dugub nga xam ne loo nay nay boo yëkkatee sa sa sabaar am loo fa ba muy guddik sëñ maam Cheikh Fall gi kon monsieur le maire Babacar Diop sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi di ci woo tamit ki nga xam ni mooy monsieur le maire Birame Souleye Diop mi nga xam ni gox bi sëñ maam Cheikh Fall dëkkee moo ngànk wàllu woowu muy monsieur le maire zone nord Birame Souleye Diop sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi bu baax a baax di ci woo tamit DG Pape Doumbia moom mi nga xam ne lëkkoom bii ba mu ko amee ba léegi at mu jot daan sëñ maam Cheikh Fall bu ma tàggu bul ma laaj xoole ni nga ko bëggee ñu defee ko noonu sëñ maam Cheikh Fall mu ngi feddale kóllëreem ak Pape Doumbia di ko woo ci bis bu baax baax di ci woo tamit ki nga xam ni mooy njabootug monsieur le maire ndem si yàlla si euh, Mamadou Dieng damay ab ànd bu yàggee te sax dëkk kon ñanu bàyyi ginnaaw moo baax kon monsieur le maire euh, Maodo ñu ngi lay woo ci sa turu wayjur wi nga xamante si nii daan na def lu baax amoon ki nga xam mooy teraanga ak sëñ maam Cheikh Fall sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi ndax ku jur doom deewoo kon Maodo ñu ngi lay woo ci bis bi di woo tamit ki nga xam ne mooy le président Abdoulaye Dieye donte bokkuñu commune bu mu nekk waaye ku bëgg l'islam la ku bëgg diine la ku am taxawaay ci wàllu diine ak tarixa yépp mboolem tarixa bu mu mënti doon Ablaye Dieye mi ngi yëkkati teraangaam di ca dem di ca mu daarante moom te képp koo xam yaa ngi am taxawaay ci njabootu maam Cheikh Ibra Fall bii ak njabootu Tidiane geeg Mouride geeg Xaadir geeg Laayeen gi ñooñu kilifa yi nga ko defal kon du xew la mukk tudd nañ ci woo kon Ablaye Dieye sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi di ci woo tamit ki nga xam ni mooy monsieur le maire Habib kan Habib kan mu sëriñ Baaba Kër Si damay wax ni nag diggante Baye Fall ak Mouride ak Tidiane mburoog soow lan da ngay boole naan mbaa boole tuur te Habib loo wax mu ni sëriñ Baaba Kër Si kon sëñ maam Cheikh Fall mu ngi lay woo ci bisam boobu di la ñaan gudd fan gu ànd ak wér nga fekk ko ci bismillahi rahmaani rahim di ci woo tamit njabootuk sopp nabi yëpp ko ko jiital muy wëlëreem lu yàgg nga xam ne ba ko sëñ bi dooree ci at mu njëkk ba ba fii ñu toll at mu jot da ci am taxawaay bu mat sëkk muy sëñ Mor Gueye sopp nabi ak njabootam gi ko àndal yëpp sëñ maam Cheikh Fall mi ngi leen di woo ci bis bi di ci woo tamit dëkkandoo bu baax koo xam ne bu weeru koor wi teroo wala tabaski mu ngi leel miskin yeeg bàyyi muy sëñ ma lay Seck nekku fi ma nga bitim réew waaye ku am taxawaay la ci dëkk bi sëñ ma lay sekk euh, sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi di ci woo tamit ki nga xamante se nii mooy sëñ njaga njaga nag bu yemoon ci moom rek mu mat ndax doomi sang la doomi kilifa la bokk ak sëñ maam Cheikh dëkk bi di def lu baax sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi ak ñu ngi ko àndal ñëpp di woo tamit rakki boppam sëriñ Cheikh gay mi nga xam dañ koo investir ci liste yi ñu jëm di ko ñaanal yàlla ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall lam ca sabab ak lam ca yéene yàlla na ko am muy honorable député xam naa ne buñ jógee ci bis bi sëñ bi dina fàtte ak yow ñaanal la nga jot ci loolu kon sëñ Cheikh Gaye sëñ ma sëñ maam Cheikh Fall lay woo ci bis bu baax a baax di ci woo tamit mbokkam soppeem xaritam muy sëñ Ousmane Diop moom bañ na ko bu campagne yëpp borom Ndar Fall la doon wax kon sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi ndax yow buñ la joxoon kaddu gi rek kon fii ñu toog man mat nga fi sëkk man nga ñëw wootal mbokk autorité yëpp waaye ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la wax ni sëñ maam Cheikh Fall lay woo ci bis di ci woo tamit jigéen ju mën góor muy ajaratu ñaaña kan dëkk fi ci zone nord di dëkkandoo sëñ maam Cheikh Fall di taaliba Cheikh teg ci waaye xool moom penc mu mbokk daa xool la képp kuy asadu an laa ilaaha illallaah boo ko rustawoo ruslaa wuyu kon ajaratu ñaaña kan sëñ maam Cheikh Fall mu ngi lay woo ci bis bi di ci woo tamit ki nga xamante si nii mooy wëllëreem du yàgg nga xam at mu jot ba ci gàmm gi muy def ci buntu kër gi day def une forte délégation ñëw toog ba mu tas ta du dem indi teraangaam indi xéewalam di joxe addiye ba koroog muy jóg muy sëñ Omar Badiane sëñ Omar sëñ maam Cheikh Fall mu ngi lay woo ci bis bi di feddale seen kóllëre yéen ñaar di ci woo tamit ki nga xamante si nii mooy président Massaly Massaly nag ñëpp xam nañ ko ci njàmbaar ak dëggu ak wax loo xam lu mu wax dina ko def di jàmbaar di jeune responsable politique nekk fii ci Thiès euh, sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bu baax a baax di woo tamit taalibu cheikh bu mag bi muy ajaratu awa dëkkure mi nga xam mi ngi leel miskin yeeg baayo yi di leew di dimbali néew doole sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi xam naa ne nag ñun war a woo ñëpp dañoo xajul nag ci bis bi ndax waxtu wi xoncu na waaye képp koo xam yaa ngi dégg suñ suñu kaddu gi jàppale sa digganteeg ak sëñ maam Cheikh Fall du télé du rajo du kàddu xool la ak xol te xol ak xol nag yaakaar naa ne làmmiñ amu ca place kon képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan ci ecran bi sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay wax ni guddi gii moom ko moom dong da ko da ko da koo sumb nag waaye ëpp na koy loxo waaye tamit nee na du ba àggal te du tudd nag ki nga xam mooy sëñ Idrissa Ndiaye Sayful Xadim nga xam at mu jot daan yónnee une forte délégation ñëw ànd ak moom ci bis bi sëñ maam Cheikh Fall mi ngi koy woo ci bis nam daan taxawaaye ak délégation yëpp sëñ bi ñoom mi ngi koy xaar mbokk yi bis baa ngi noonu xam naa rek du ñu guddal dañuy ñaan rek képp koo xam yaa ngi dégg suñu kaddu mu fekk la ci ci jàmm te bis ba tamit fekk la ci jàmm ba nga mën a sañse sol lu yiw ñëw wuy si sëñ maam Cheikh Fall mu sëñ Modou Ablaye ndax damaa wax ne ki la yéen jàmm mooy guddi tam xat gi nga xam ne Sénégal gépp en lu ñu jàppoon mooy que ne bu guddi gu jotee bu reeree ba noppi rek puudaru ci doomi taal bi yor ay tama dem jaxasoo góor ñi jigéen ñi ku ne wecceeku sa morom ci colin loolu lañ jàppoon ni loolu moo fi ne waaye bi sëñ maam Cheikh Fall ñëwee tàbbi Thiès gëm na nag loolu nëw fi mën nañ koo remplacer tudd yàlla ba tax na boo ñëwee ci promenade de Thiès waa fan ko mooy ca pax ma daan tudd xajatuñ fa génn na nag ñoo ca biir xuróo kon nag nan xam ni nañ ñëpp xam ne lu waay def na métier dëgg lal sëñ maam Cheikh Fall mi ngi woo ñëpp ñëpp wàllu jàngo bi ñi nga xam ñoo église bi am ngeen fa cër sëñ maam Cheikh Fall nee na bu leen woowee mooy maamam diggante maamam ak moom maam Cheikh Ibrahima Fall diggante ñi nga xamante ñoo nekkoon gouverneur yee nekk ndar nga xam am na ci ñoo xam sax ceddo yoo xam tudde nañ ko doom ay chrétien yoo xam tudde nañ maamam ji doom kon rafet na mu tuddewaat leen bis woo leen ci kon ñu ngi woo ñëpp di woo tamit ki nga xam ni ma ajaratu Ndeye Tické Ndiaye Diop am na at moo xam ne macha allah ñoo defoon délégation dem ba ca moom mu yónnee une forte délégation ñëw ren nag yàlla dogal na yëkkati na ndombal tàng ba mu nga bitim réew di ñu seetaan waaye sëñ maam Cheikh Fall nee na tey ak fii ak fële rek la yemale foo mënti nekk di nga dégg saw tur ci bisam bi ndax moom kóllëre da koo mën a sàmm lool kon ajaratu Ndeye Tické Ndiaye sëñ maam Cheikh Fall mi ngi lay woo ci bis bi di wax ni waa Medina Fall nañu gën teeru gan yi ndax bis bi ci bëccëg gi lañ koy tàmbalee fii ci kër gi togg ay xéewal yendoo fee tudd yàlla wàcce fa ay kaamil jàng fa ay bu nu xewloo ci guddi gi ba noppi na ko teel yàq 19 heures képp koo xam ne reer nga ba këpp say ndab rek ñëwal dese fee say ñaan ndax guddi sañ maam Cheikh Fall gii nga xam ne tantal maam Cheikh Ibrahima Fall lamp babul dina jàng xas yi sëñ Pape fay ñëw zikur la ak ñoom njaaseeg mbooleem tuddkat yàlla ñi ko àndal ñëpp taxaw ñu fas yéene tudd yàlla ba bës set kon loolu yaakaar naan ku ca jiituwul rek am nga yéene ñëw ca kon na ñaan fekk ñëpp fekk leen ci jàmm di wax ni fii la ñu suñu kàddu nag sëñ maam Cheikh Fall moom sëñ Modou Ablaye Fall Ndar yàlla na fi yàgg lool te wér asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ mu Jóob Njaay njariñ li yow it ñu ngi lay xaar ca bis ba ndax xam na ne yaay bégal soppe ya fa nekk yëpp yaay dugal pafay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydina di wax ni ñoo ngi fii tey ci péncu maam Cheikh Ibra Fall ci Madina Fall di waajal bis bu màgg boo xamante ni sëriñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Modou Ablaye Fall moo koy amal bis bu nekk ci bisu tamxarit bi bis bi nag sëriñ bi mu ngi koy yëgal mboolem bokki jurit yi ak bokki taalibe yi noonu ñu ko waxee woon léegi rek ñi ciy jiital nag ki nga xamante ni mooy monsieur le gouverneur u Thiès Aline Badara Mbengue di ci woo waa yi nga xamante ne nag ñoom la séqal bis bi ak njabootu Cheikh Modou Abdoulaye Fall ga nekk Touba gépp di ci woowaa waa Njaaréem ak njabootu Cheikh ab Abdoulaye Fall ga nekk ci Njaaréem di ci woo waa Bayti la ak mboolem njaboot gi nekk foofa di ci woo waa ba mbay ak mboolem njaboot gi nekk foofa ak bokki taalibe yi di ci woo waa Noto gi nga xamante ni ku ne xam na seen wàccuwaay seen digganteeg sëñ maam Cheikh waaye ku ne xam na maam Cheikh Fall digganteem ak waa Noto. ci woo it waa Kër Mangaari waa Kër Mangaari nag ku ne xam na seen digganteeg sëñ maam Cheikh Fall ñoom itam sëriñ baa ngi leen ci woo at mu ne dinañ ñëw ànd ko sëriñ bi ñu ngi ciy woo waa Peekuk ñoom seen digganteeg sëñ maam Cheikh ku ne xam na ko sëriñ baa ngi leen ciy woo di ci woo waa Kër Madiop Fall ñoom itam sëriñ baa ngi leen ciy woo di ko fas yéene ànd ak ñoom bis bi noo ngi sàkku daal bis ba képp ku fa teew yal na nga dayanteeg tawféexu sëriñ Tuubaa bi barakati maam Cheikh Fall di ñaanal sëriñ maam Cheikh Fall ak ñi mu bokkal maam Cheikh Fall te mu bokk ñoom penc mi ñu ñaan yàlla sama borom nu yàgg fi te wér ci barke borom Tuubaa kon sëriñ bi nee na mboolem koo xam te ne yaa ngi dégg kàddu gi mi ngi lay woo ci bis bi bisub tamxarit gi lay doon dañ koy fanaanee ba asamaan set incha allahu taala mi ngi ko yëgal bokki jullit yëpp dëkk bi mboolem ku fi kilifa diine sëriñ bi yëgal na la ko di ñaan ci sàkku ngeen ñaan ko ci yàlla sunu borom ñu tasateeg taw féexu sëriñ Tuubaa noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ku taalibe man nekk ci àdduna di leen xamal ni nag bis bii su ngërëm la weer wi ñuy tàbbi yal nañ ci sunu borom yóbbu ak jàmm mooy weeru maam Cheikh ci lañ ko mujjee gis te ñetti fan yi kon jotaay bii nga xam ni sëñ maam Cheikh moo ko woote dafa nekk ci diggante jërëjëf ak jaaraam diggante jërëjëf sëñ Tuubaa nag ku ci nekk ak jaaraam ak Cheikh Ibrahima Fall war nga sant bu deful lu dul lii itam lu mu nekk it lii ko gën te moom ba mu ko xamee ba léegi ànd ko ak mbokki taalibe yépp ak Cees diggante jërëjëf jooju mu nekk nag ak jaarama moo waral jotaay bi fii mu ko mu ko defee fii mu ko defee mi ngi am téeméeri at ak fukk ak juróom benn fii ba ko Cheikh Ibra di am téeméeri at la ak fukk ak juróom benn kon ñu koy ñaanal dund googu diggante 1904 ak 4 5 mu nekk foofale eh, ñëw fii diggante 6 ak 7 1906 eh, kon eh, lool lii mu def du lu hasard Cheikh Ibra nag dafa dafa jagoo zikrullah may wax léegi rek di rétupe ñu bari Baye Fall du yoon murit la murit mooy yoon Baye Fall nag mooy terminus wu yoonu murid mooy terminus kon mënoo nekk Baye Fall te nekkoo murid kooku moom na leer ñépp àgg ci Baye Fall nag mooy àgg nga ci terminus euh, murid kon suñ maam Cheikh bés bii bu koy jegleel Cheikh bi jëlee ko zikr la al qasaid dafa am ay melo yoo xam ni war nañ ko melowoo mm-hmm. melo yi nag melow zahir la ak melaw baatin melow zahir mooy képp koo xam ne gis nañ la nan la fonk ci ci col gu rafet ndax Cheikh Ibra garmi la woon ba mu wàccee ci liggéey bi ñetti at yooyu lu cher la daan sol ba ñu bari ñu daan wut ak yére yu baax ci Cheikh Ibra ñuy ñëw kon bisam nit ñi war nañ cee solo ba jekk ci zahir baatin bi mooy li koy doxal muy laa bi ak jàng xasida ka koy def itam war naa am sell goo xam ni war na koo fas ci xolom xam ni bis boobu bisu ñaan la du bisu pokkarewu du bisu lenn ndax kat sëriñ bi du mu koy taxaw di ko taxaw li mu ci mu mooy li fi maamam bàyyi mu mu mu mu mu moom aar loolu nag di la woo mbokk yi jullit yëpp mbokki taalibe yëpp mbokki képp koo xamante ni euh, Cheikh Ibra ñor na la te Cheikh Ibra kat ku mu ñor mooy l'islam bépp ñor la tarixa yëpp ñor la la ndax lu baax lu nekk fu nekk la ko jëlee dugal ko ci biir biiram dundam ngoo ngir liggéeyal Cheikhul Khadim kon sëñ maam Cheikh yàlla ci suñu borom yóbbu jàmm yóbbu ci taalibe yëpp di leen ci woo ñëpp képp koo xamante ni safana Cheikh Ibra Fall wala boog muy taalibe maam Cheikh ci bis bu mag boobu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. lool Baye Ndiaga waaye xam naa ne rek daanaa wax lu bari ni lii du neen yàlla laay faal maam Demba Njara yàlla lañ ko njëkk a wax ndax maam Demba Njara yàlla ñu yëpp maam Demba Njara yàlla mooy seen mag ndax da nga naan Demba Njara yàlla ne Bakar Waat ne Mandiaye Fatim. ne seer asta ne saali asta ne roqee faal faal mel ni kon njare boobu sa maam dëkk daal yàgg yàgg la xam ci jàng ak jàngale ak xam-xam bu cër alxuraan bu leer nañ la Cheikh Rafa di sport di jullit di yaar di noobu daanañu wax naan sax léeg-léeg sama place bi daanañu wax ne mooy ñun fukkeelu sëñ taalibe sëñ Tuubaa nangam sànq waaye yooyu yëpp Cheikh Rafa tardewul noonu tardewul noonu de ويتم رقم ولحق المحضر الخديوي في اول الحركه المريديه وبايع الخديم تحت شجره في باقي التجوف في مقهى البرع في احدث عشرين في بصره في رمضان لما حكى السوداني وارتحلوا عن بكة الكجوري اذ رحلوا عن ذلك بالبناء محضر الخديم من في كان في دواي تستارجا نان كو في جان اندي وون دما كو في هيما اندي نك تموي لي ما ووت نغا توك sëñ Mourou Ablaye nee na ma am na ñu def am na ñu toog dama saa yu ma ko faa ma amoon na ñu dem dañoo bis xam naa ci ñu bari waaye du tey waaye Cheikh Rafaal moom fii sëñ xam nga baatu wax leen dëgg ñu dégg ba jëf dëgg ñu gis mooy Cheikh Rafaal sëñ Mourou Ablaye nee na ma Cheikh Rafaal dafa ne sëñ Bamba wax leen dëgg ñu dégg ba jëf dëgg ñu gis sëñ dama wax leen wax dëgg ma jëf dëgg ñu gis ndax nitu yàlla dafay am ci maqama muy àgg koo xamante ne lu mu def ci suñu borom moo ko doon def loolu xam nga suñu wóorat laay daana wax suñu maam Cheikh Fall naan ko maam Cheikh mu ne ko Fall mu ne ko léeg-léeg damay tàgg ci kàmb suñu borom boo xam ne dul saa borom mën a def daana ko wax waaw suñu wóorat laay daana daana daana tàgg ci kàmb suñu borom damay tàgg ci kàmb suñu borom boo xam ne yenn saa yi dul saa borom mën a ma teg génne laa ilaaha la